la télé de l'éducation, la magie de la télé, des TV. Au revoir. benn waxtu ca jam ñaajo mbokki xibaar yi jot a sënk ma asalaamaaleykum euh, lii gën a fës ci boppi xibaar yi bokk na ci njiitu réewum France Emmanuel Macron niki démb mu wàcc aéroport doom yaay ñilaan bi euh, ñëw fii ginnaaw ak nemmiku waaye tamit jëm ci ab journée bu ñu jagleel wàllum éducation bi ñoom ñaari njiitu réew mi jamono yi sax ñi ngi fële nga xam nag moo di euh, centre Abdou Diouf bu jam ñaajo lépp ci waxtaanee wàllum koppare ñi sóob ci njàng meek njàngal mi dañ ci dikk gën a ci biir xibaar yi li nga xamante mooy jëm ci mbirum Khalifa Ababacar Sall moom moomee nga xamante ni daal daanaka tey jii waroon a jàkkaarloo woon ak wàllum attekaay bi ci mbir mu soxal li nga xamante moom moo di ay exception yuñ koy duppee ñeel nag liberté provisoire ak incompétence boobu la kër gu attekaay waaye lu ni mel nag président tribunal bi da koo dàqaniwaat ba altine jamono boobee nag ñi nga xam ne ñooy ordre des avocats jàpp ne moom Maître El Hadji Diouf moo bëggoon a àddu ca procès ba sañ-sañ muyu ko buñ sukkandikoo ci taxi yi Euh, ci biir xibaar yi bokk na ci daanaka fii ci Sénégal lim bu toll ci fanweeri junni ci ay xale di ay tout tànk daal dañuy am jàngoroy xool te booy xool téeméer boo jël juróom ñett fukki si ñoom dañuy mujj ñàkk seen bakkan ngir saafara li mal moo war a nag ñu daaf ab lëkkaloo ak Xëm France taxawal ab projet boo xam daal dañu fexe ba mbir moomee gën koo mën a wàññi xeex ko ci Sénégal. ci biir xibaar yi dinañ ci gën a fës lu jëm nag ci eh, ñi ñuy duppee ay séeréer di ko liggéey ñoom nag bu ñenn ñi jàppee ne aada ak cosaan moo tax ñu koy def eh, tërëwul tamit ba tax tey jii gisuñ ci seen bopp ngir mën a nag faj seen i soxla te na mu waree du Samb moo demoon seeti leen yeneen ci ponk buñ ko ci boolee faram ko xibaar yi day daal di buur ci kanam ñu yaatal ko. mbokk yi di leen nuyuwaat di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakatu ni ñu ko waxee woon sànq ci ndorteli njiitu réewum euh, France Emmanuel Macron jamono ji mi ngi ci réew bu Sénégal démb la wàcc aéroport doomu yaay ñilaan bi ak jogoy naataangoom président Macky Sall daal koy dalal ña nga jamono ji ñuy àddoo ngeen di teelu ci centre bi Diouf international bu jam ñaajo waxtaane yurum euh, financement yi ñuy sóob ci éducation njàng mekk njàngale mi dem ni mi tamit si dànq daara ju kawe nekk foofee ci wàllum lycée technique euh,

njiital rewmu France Emmanuel Macron ci dakaro bepp xumbuteef wala am ndaje ñu tereendi ko ci capitale bi tax ba mbootaay gii di France dégage mi ñu tere seenub rassemblement ci ambassade bu France di ñaawlu bi leen dogal. gàcce la ci Sénégal ba tey Macky ak gouvernement bi di laxatu ci arrêté Ousmane Ngom ñun ku ne xam nga ni constitution Sénégal moo ñu autorisé may ñu pour ñu mën a manifester dañ leen yëgal rek yëgal kottu la bu ñu nekkee ci réew mi bopp réew mi ba tey amul benn manifestation boo xam ni autorisé na ko donc dictature la. ñi bootu ci kuréel gi di France dégage ñu ngi xamle ne bi leen ndogal daanaka bettu leen ba tax na ñu ngi xam xamle ne daañu amal ni ki ñaari fan ci weeru février ca buntu ambassade bu France seen dajaloo bile ci njëkk ak teraanga. xam nañ ni Macky Sall c'est un gouverneur de la France c'est simple et que euh, patron bi muy ñëw euh, suq bi di ko xaar. dañuy dem buntu ambassade France devant Macron xamal ko li ñu naqari ci buumu njaam gi ñu takk kenn du ñu ñuy naqarlu ba fa naqarlu yem marche wala rassemblement yi ñuy di ci réew mi panafricaniste yi leen ak ñoom biiral nañ ne daañu topp ci kanamu yoon arrêté bi ñuy wax arrêté Ousmane Ngom loolee ngir wane seen ko ñàkk ànd ci bile ndogal nga xam ne dañoo jàpp ne ñëpp moomuñu ko te tamit du ñëpp la ñuy tere ñuy amal ay marche soxal ba tey boobu lépp euh, ñëw macaron ci Sénégal euh, ñëw boobe ñi nekk ci nag parti démocratique sénégalais ñoom it bëgg a bokk ci ñey wane seen ko naqar waa APR wala bokk moo ko ci mouvance présidentielle ñoom jàpp ne nag dañoo war a am dayoo ak xel mu dal ci wàll yi te bàyyi nag fitna wala bokk jaxase gi ñu bëgg indi ñoom sax seen ndaje bañ doon am addunañ ci lu soxal Ousmane Sonko Abdoul mbay ak Thierno Alassane Sall kuréel googee nag ëmb ay républicain euh, ndaje bañ doon amal ndaw muñ fa teewaloon di rek Mouhamadou benn ganesi ay teeru yu bëri te wute bii PDS na mu def neexul benn yoon cadre républicain yi ñoom jàpp nañ ne président Emmanuel Macron bu ñëwee senegal da nga ko war a teeru si njekk ak teranga. dañu nekk ci loo xam ne nii weesu nañ ko loolu mooy lan tey diggante baay ak doom lañu bëgg jël def ko ak moomeel ak jëfin ci senegal ka nga xam ne nii ma nga ca ndar bokk ci ñoom aussi ne moom itamit dafay teeru macron du tax parce que yemul rek ci mbirum njàng mi nga xam ne nii moom moo tax mu moo ëpp solo ci ab ñëwam dafay dem di seet la nga xam ne nii géej ga tey dafay bal ba war a nungu ay dëkkuwaay mu jëw bëgg caa jàppale sénégal ñun ñëpp xamoon nañ la ñu waxoon paris njiitu réew mu France mi ngi ñëw senegal si benn jamono bu tar lool si wàllum politique waaye tamit si wàllum liggéeykat yi Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye ñu ngi ŋàññ bu baax a baax anam yu ñu yoree ay meññeef yu bàlle si géej géej ci suuf si jëm si wàllum gaz ak pétrole. mais bi daañu ko nag jëmale ci lu toll ci ñetti téeméeri mètre jëmale ko ci biir géej gi te loolu lu jafe la rax ci dolli total nag joo na ci lu toll ci ay milliards yu bëree bëri sax. te tamit bu gisee nag lépp liñ ci def daf ci daal di ànd ak petrosen petrosen moom sax moom mooy def saam yépp su ko defee nag total jël li mu moom sénégal jël wàllam. si wàllum politique yi tamit tontu bi leneen la. sama rakk sama xarit li may wax dina ko dégg mu di Thierno Alassane Thierno Alassane sàll wax dëgg yàlla man day li ma koy wax mooy na toog bàyyi politique te dellu ca la nga xam ne ni moom la xam. parce que mënu ko xamu ko. ndorteelu weeru février bi li ko nar a gën a marqué moom mooy ñëw bi fi président Macron di amal. gana googu sax moom ak président Macky Sall dinañ jiite benn ndaje bu am solo jëm si wàllum njàng ak i tamit koppar yu nga ko mën a financé serno bi yëpp te mbébét bi sax moom mooy am si ñetti milliards bu tombal benn si ay dollars ngir jëmale ko si njàng ak njàngale ci àdduna bi fi nga ko gën a soxlaa. bokk na ci lu soxal ba tey ñëw pour Macron Emmanuel Momé njiito réewum France visite bi euh, soxal li nga xam nag daanaka bërëbu waxtaanukaay yi di débat yi euh, ñi nga xam nag ñoom ñoo soqeekoo ci réewum France nekk di yeewoo jamono ji fii ci Sénégal ak i ak doomi réew bu Sénégal nee nañ nag daal jamono ji nañ ko lalal tapis rouge te bañ a nag indi ak jaxasoo loo xamante mën naa indi euh, ak réero ñu xam ne ñaar réew yi nañu gën a rataxal diggante bi jëflante bi gën a mën a yemb ndax nag bokk na ci wàllu wér itam njàng meeg xëy ndaw lu ñu war a saafara dañ caa nekk Xelaaji Moussa Bey ci reportage. ñeenti weer mu nekk Sénégal bi les ressortissantes françaises bu ñu fekk ca centre culturel français di fësal mbégteem ci gis président Macron filé ci Sénégal. je trouve ça bien qu'ils se déplacent euh, au Sénégal. maa ngi rafetlu bu baax bi les visites ndaxte lëkkaloo bu am solo moo am ci diggante ñaari dëkk yi lëkkaloo boobu mu nekk lu mu war a gën a dëgëral. important et intéressant. Sénégalais yi ñoom it di ko ganale. loolu kontaan la lu rëy si suñu en tant que sénégalais. te am na yaakaar ne aussi nit ñi dina dinañu génn population bi dinañu génn accueillir président bi. prance ak Sénégal yàgg nañ su fi ñëwee war na fi ñëw. ñëw na si dëkkam. te France yàgg nañu taxawu Sénégal. si fànn bu nekk. kon ñëw bi fii dañ koy rafetlu. ci kàddu yi citoyen yi la nag doxub nemmeeku njiitu réewum France mun na indil njëriñ. réewum Sénégal. am na yaakaar ne euh, relation yi diggante France ak Sénégal euh, dina dem kanam daal. côté éducation côté santé. tey ñoom am nañ ay infrastructures yoo xam ne seen dëkk loolu amu fi. lañ sàmm suñu intérêt bu baax li nga xam ne pétrole bi nga xam ne moom lañ am nañ ko sàmm bu baax a baax a baax a baax baax. di ñaan tamit njiitu réew mi nga xam ne moo fi nekk. lépp lu mu ci mën a dàppale na jàppale jeunes yi. ñu leen di wóolu ngir ñu bañ a def xew bi rek yëf yi politique. nguur gi jóge fële ñëw fekk nguur gi dañoo war a jàppalante seen diggante instant yi dafa war a dépasser côté politique. man daal teraanga laa def sant daal. waaw ñu teeru ko teral ko daal. c'est un peuple très accueillant. Euh, nekk na askan bu neex dëkkal lool te it fonk nañ gan bu baax. on se sent à ñu ngi xaarandi nag bu baax ci jaar jaaruk Emmanuel Macron fii ci Sénégal ñu gën a dëgëral jokkalante bi dox ci ñaari réew yi wax soxol nak euh, menen mbir ndar kep mbirum wisitu Macron bobé euh, soxol mbirum Khalifa babakar Sall mi nga xam nak euh, danaka niki ki le tribunal bi nga xamante nak moy bu grande instance bi nek ci la dior daal di dàqandi njiitu la dàqandi li di mbir ma jëm ci wàllu wooye di ay exception ki yenen yi nga xam ne war nañ ci addu ginnaw ba nga xam nak dal gis nañu ni lolé wanal ne nak feussal na compétence am waaye terewul ñi nga xam nak ñom ñi nga xam nak ñoo nekk ci partie civile bi di yuuxu ndam jàpp ne victoire bu njëkk la euh, ña défense ba gis ne nag loolee teel na ñu di koy def ndax fi mu nekk nii daal am na ci lu bëri lu ñu war a liñ ba caat ci mbir mi di ay mbir yu euh, dem ci question de fond ñu ànd ci euh, Codé Ndiaye moo fa demoon waaye daañu ci dikk élément bi balaa ñu jeexal xibaar yi jamono boobee nag ordre des avocats di kuréel gi ëmb avocats yi nekk ci réew bu Sénégal ñoom taxaw temm nag sukkandiku ci ay loi jàpp ne nag Maître El Hadji Diouf daal mënatul bokk ak euh, mairie ba loole nag démb lañ ci wooteeb ndaje bu yaatu ñoom kuréel googe ne nag dàquñ benn yoon amal li nga xam te moom moo di ab euh, commission de veille ngir mën a nag euh, bokk ci ñuy topp boobule procès yi ñuy teewlu kàddu yi nag ki nga xam te moo di maître Ibrahima Fall ak Ali seen i kàddu ñu ta ko. ci procès nga xam ne dañ ko tuddee procès Khalifa ñëpp gis nañu li nga xam ne moo fay xew. ñu bugg leen leeral ne moom El Hadj Moustapha Diouf dootul continuer ci procès bi waaye ñàkk teewam ci décision bâtonnier bi la jógee parce que dañ ko ñëw nañu wax ko bâtonnier ne ko lii lañu constaté bâtonnier ne sunu règle yi nañ ko génnee xamal ko ne mënatu la toog di layool pour xalifa Ababacar Sall loolu rek la woon naa ko mais mënatu la ñëw it di layool mairie bu Dakar. wetu njortam jàpp si njort bu rafet jàppoon na ne mën na ñëw pour mairie bu Dakar parce que batuñee daf ko ne woon mënoo taxawu xalifa Sall moom loolu la jàppoon ma ne gëm naa loolu mu jàppoon bi ma waxtaanee ak moom bi ma xoolee également paaseem ndax doon ministre de la république te nag ñu tànn la def le ministre du ku nekk la ko yàlla di jagleel ci réew muy benn ñaareel bi ñaari yoon doon na député li tax ma ne ñaari yoon mu doon député mais député ñoo defar loi yi donc mënoo am stature boobu ba pare di génn naan man damay wàcc yoon saa yu ma mooy li ma leen doon wax sànq ngay xool situation yi ni muy demee di ci tiré ay leçons pour que système bi di dox na mu war a doxee dëppoo ak yoon dëppoo ak suñuy règle ñun loolu tey moom lañ ci mën a jëlee comme njàngat boo xam ne dinañu jëmale kanam parce que li ñu intéressé tey à partir d'aujourd'hui mooy ñu veiller pour que règle yi ak ku mu munti doon ñu appliquer ko à la couleur bu doon loo xam ni day addu ci wàllum lii di wér-gi-yaram soxal nag euh, lii di jàngoro yi waxoon naa ko ci ndorteelu xibaar yi euh, ci Sénégal daanaka lim bu toll ci fanweeri junni ci ay tout tànk dañuy am jàngoro yi xool bu ñu xoolee téeméer boo jël juróom-ñett fukk si ñoom dañuy faatu loolee nag la ko wund bokk na ci ñàkk ay faju yu jaar yoon yu mucc ayib di ay soins spécialisés lu ni mel nag saafara ko moo illay lii di ab projet bu ñu taxawal di centre cardio euh, boo xam nag pédiatrique di benn at Sénégal waaye ñu gën koo dooleel jox ay jumtuwaayu yu mat sënkam loole nag daanaka sax nit ki tey jii la ci ki nga xam tak moom moo di euh, wala bokk njiitu euh, soxnas njiitu réew mu France ànd ak soxnas Marième fay euh, soxna Marième fay bu njiitu réew mag Sall dem ni mu ko ji barab boobu dañ ciy teewlu sunu ndaw bañ fa yabaloon di Marième Birane Ba Diop Mamadou Sakho di doomu Mali bokk ci xale yu ñu opéré ci centre cardiopédiatrique Womo nekk ci hôpital Fann centre bi leen nag dañ ko teg ngir mu taxawu bépp xale bu am feebaru xol nekk ci senegal ak ci dënnu Afrique muy lu njëkk ci biir Afrique soo jant. bis tey opéré nañ 154 malades ñoo xamante ni nii qualité bu baax lañ leen opéré te mën nañ. non seulement opéré leen fii mais ñi nga xam ne dañu fee dëkkul wala dañoo dëkk fu sori am nañ également kër goo nga xamante ni moom lañ leen jagleel goo xam ne fa lañ leen di def balaa ñu leen a opéré wala bu ñu leen opéré ba pare. centre bi leen nag mu ngi antu gannaaw benn partenariat bu dox ci diggante hôpital fan chaîne de l'espoir ak fondation Kouomo. ay bokk yoo nga xamante ni dañoo dajaloo ànd ak ñun dimbali ñu pour ñu def ko li ñu tàmbalee woon mooy daan jël ay xale di jéem a yóbbu France pour ñu opéré leen waxtaan bi ak suñu àndandoo ak mbokk yi gënee jëm ci kanam ñu indi ay nit ñu ñëw fii di opérer ay tubaab yu ñëw fii di opérer pour ñun waaye ñu dem nag ba xalaat ni ñu defal ko suñu bopp mooy gën loolu moo waral ñu dimbali ñu ak ay partenaire ak état sénégalais pour ñu tabax

góor góorlu ak techniciens yi nekk fi yëpp pour que xale yooyu ñu mën leen a toppatoo ni mu waree. ngir xale yi nga xam ni seeni loxo waa jur jotul seeni gannaaw njiitu réew mi di Macky Sall fas yéene ci dugal loxoom bu baax ngir taxawu bépp xale bu am feebar xol fii ci Sénégal ci fàttali centre bi lee nar nañ kaa inauguré niki tey ci ngoon ci teewaayu Marème fay sàll ak kii di madame Brigitte Macron. mangook ngoog noonu nga ko xam ne tey ci ngoon la maanaam bu midi weesee ci lañ koy dalloo boobale barab bu fajukaay ngir ñeel tu tànk ci jàngoroy xol wax leneen soxal lu jëm nag ci jaba nekk ca marché ji de caare kaw euh, foofee nag di ab jaboo xam daal daanaka ña jaay am mer ba futu seen boolu njàmbat ba daal dañ ko daanaka bejji si daanaka wàcce ko ca mbedd ma am lu ñuy mettalu ci taxe ñuy yokk daal ci loolee jóge ca bokk moomeel ba ñuy jàpp ne nag kilifa yi bu ñu ci deful ay jékku dañu dellu buum ca mboy mboy ga wàccaat naqarlu ko ñoom nag ba ñuy amal loole am na sunu ndaw bu ñu fa teewal na Ablaye Wajé nga taataan na ñenn si ñoom seen i kàddu ñuy teewlu ko. dañu ñëw alors moom ku doon fay 4000 francs ah du ñu ne alors dañu obligé marché bi yëpp alors def def abonnement. kooku nag kooku amul amul fenn amul fenn fu ñu ko gisee marché bi yëpp dafa abonnement bu fekkoon ni ñoom ñoo ko tabax balaa nit ki dugg dañoo wax ne alors wala balaa nga dugg alors da nga fay abonnement waaye donc ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo tabaxal suñu bopp kon nag ñun de ku mu neex daal mu def abon abonnement ku mu nekkul alors moom mu bopp ma fay juuti kooku nag xamuñu ko fan la fan lañ ko teg laajuñu kenn dañu bind ba pare ñu door a ñëw si ñun alors ñu ne woon bind naa des ñu andu ñu andu vraiment dañ ci am naqar naqar bi mooy keroog bi ma préfet woowee ne jëndee caare ko moom moom marché bi keroog bu ñu dul woon ay sénégalais mënoon na indi coow ndax ñi ci ëpp dañoo bëggoon a nekk resté wàqi naan mais xam naa ay sénégalais lañ xam ne loi Sénégal day dox te dañ cee war a appliqué wu moo tax ñu jël suñu bopp ñun ñëpp ne jëndee caare ko moom la ñuy dem. te loolu dafa logique moo tax ñu ànd ci mais bi loolu amee waroon nañoo dawal santiment ci loolu noonu ñu ko doxalee noonu. loi bi ñu indi tey mosuñu ko xam. ñii am nañ fi 40 ñii am nañ fi 30 ans loolu nag comme ñu ko fay ba tey ñu indi ne occupation voie publique dëgg la mais nan nga mën a génnee borom place bi te ba ambulants yi nekk ci tali bi toog fatt tali bi ñoom jëliwu leen fi nga ne borom cantine yi Euh, jamono boobu bokk na lu soxal tamit ci tonnikatu mbalit yi ñi koy an mbalit moomee ñoom nag waxtaan wa nga xam te ni dañ ko war a séq ak njiitu réew mi di waxtaan wu ñu war a am mbokk boo xam ne njiitu réew mi moo ko sàkku ñu mën a gën a ca lañ ba daat euh, doxalin gi di gestion bi loolee nag euh, kii di Ndongo bokk ci ñoom rafetlu na ko bu baax waaye tamit bokk na ci leneen loo xam te rafetlu na ko mooy nañu bëgg a ñoŋalewaat lii di barabe di mbëbës nga xam ne nag mbalit mu ñu an mu nekk foofee lañ koy daanaka jàll ñu ànd teewlu kàddu ki nga xam nag moo di Ndongo Fall dénk na ko suñu naataango. mu xawoon noo jafe parce que mbëbës amul lumière boo chargé bu timisee dootoo mën a dootoo mën a déchargé parce que amul dafa lëndëm. Mhm. kon loolu bu ko defaraatee defar mbëbës Euh, def fa lumière dana tax ñu gën a mën liggéey bu ko defee dañuy mën di liggéey guddi ak bëccëg. Mhm. kooku moom dañuy gën a dañ ciy gën a kontaan. ubbeeku nañ ci bu baax moom rek li ñuy déglu heure boo xam ne organisé ko bu soobee yàlla fas nañ ci yéene participer. Mhm. boo demee ba euh, réew fait fépp euh, surtout nettoiement bi ñëpp yuuxu mhm. li Les refaites nga woo leen concerté ak ñoom waxtaan ak mhm. ndax nous sommes des nationaux gënaluñu mhm. nit ku nekk looy liggéey lu ne da nga ñaan yàlla mu gën am performance te loolu bu ko defee dafay gën a am visibilité gën l'air leeral aussi Quand il wax na dañuy surfacturer ba pare c'est électronique toujours dañuy am suñu ticket de pesage électronique kon foofu fraude naka la fa mën a amee kon li président wax nu dañ ciy kontaan bu dee euh, problème mu moyen bu dee problème technique bi ñoom waa UCG ñoom ñoo ko ñoom ñoo koy euh, sa gérer waxalu soxol li nga xam te moom moo di euh, ci di pôle warankaat bu ginnaaw raay ñoom nag euh, ab complexe la boo xamante ni daanaka mën jàpp ne daloon nañ ko ubbi nay buntam daanaka lu jëm ci ab gare routière ak centre commercial ak parc bu xam te ni jëm ci wàllum artisanal ñoom nag euh, boobule barab boobule jumtuwaay wala bokk mankaan ñu ngi ko liggéey ci lu toll ci ñaari milliards jóge ci gafak nguur gi nekk loo xam te nag ñooñi am nañ ci yaakaar ne nag xëy mu bëri dana mën a saafara wu ñu teewlu kàddu euh, Pape euh, Ndiambé Dieng dénk na ko sunu naataango ba ñu tooga ca banlieue ba Abdoulaye Wadianga. mën nga ñëw ci inauguration. waaw sant suñu borom ci ñaari mbir. bi ñu mayee lii mooy premier mbir mi am gare routière am marché am village artisanal am centre de formation ak case tout petit dañ cee war a sant suñu borom mais li ma gën a neex ci mbir mi mooy ñëpp ñu fe ñu wuyu si population bi wuyu si nañ ñi autorités yi wuyu si nañ loolu su la ko suñu borom def lee war ngaa mën a sant moo tax tey ma leen di wax ni lii nga xam ne tey moom la ñu am te vraiment ñu chiffré ko ci deux milliards cinq cent et quelque tout taxe compris léeg-léeg ñeen ñi ne deux milliards cinq yi marché bi rek la ma leen du marché bi rek marché bi la village artisanal voirie bi casier tout petit gare routière bi loolu lépp mooy deux milliards cinq cent. mun nañ ci teg sax casier tout petit budget casier tout petit ak yi daanaka bokkul li may wax APEX ngi nii fekk xam nañ ko ñoom ko gën a xam casier des informations ñoom ko jox. jël naa juróom fukki ndaw yoo xam ne seen contrat première février bi lay démarrer ñii ci sécurité ñii ci nettoiement parce que lii pour ñun ñu mën koo mën a pour APEX nangu ñu koo jox. il fallait ñu won ko ndax ñun mun nañ ko yor wala mun ko yor. jóge ginnaaw raay jàll bët gànnaar ca ndar géej bokk na lu soxal nag lii di wàllum euh, faju jëm ci deret bi nga xam nag dañ koy faral di yittewoo euh, loolee nag euh, moo waral ñi nga xam nag ñoo di waa gis ne manqué ga mu manqué foofee tumuranke ga sabab ñu amalub ndaje boo xam nag daañu amal ab dépistage waaye tamit lépp soxal ci bu ñu mayee deret ba pare ñu seytu tamit wér-gu-yaramu ñenn ñi jëm ci jàngoro yu ci mel ne VIH sida dañuy teewlu ki nga xam nag moo di Gàmbi Diagne taataan ay kàddu yi Pape Abdoul ay kàddoom. ñëpp boo nekkee ci société da nga war a bokk ci ñi nga xamante ni ñooy defar société bi comme ni ñu koy waxee bul xool lan la société bi defal may war ngaa xool lan nga defal société bi te dañu xam ne actuellement jafe-jafe yi gën a mag ci senegal bokk na ci disponibilité deret ci biir banque de sang yi ndax ay nit ñu bari ñu ngi faatu tey jii ndax manqué deret ñun bu ñu toogee ba xool xalaat daan ne war nañu apporter suñu pierre à l'édifice bokk ci ñi nga xamante ni aussi dañuy jàppale nit ñi ci wàllu jafe-jafe boobu moo tax ñu neen nañ def journée don de sang waaye ñu ne bu ñu yem foofu ndax xam nañ ni euh, Sénégal wala àdduna bi yépp ñu ngi xeex ngir daan feebar bi nga xamante ni mooy sida itamit tamit ñu fexe ba nga xamante ni nit dootul faatu ndax dafa am jàngoor jàngoro sida loolu moo tax ñu ne doon tey def don de sang baax na waaye nañ ci dolli tamit def dépistage VIH sida waxoon naa ko ca njëlbelu xibaar yi soxal professeur Ababacar xalifa Sall moom moomee nag euh, lii di tribunal bu correctionnel bu Ndakaaru daal di nag àddu ci mbir mi daa gàntal lépp lu jëm ci exception ñu bëggoon ñeel wàllum nag euh, li l'incompétence yu attekaay boobee liberté d'office ak provisoire bokk na ci tamit wàllum cautionnement ba ñi nga xam nag ñoom ñoo di partie civile bi daal di yuuxu daane ndam bu njëkk ña ca défense ba nag ne leen may leen mu ma ñëw ndax it teel na ngeen def lu nu jàpp ne nag daanaka li gën a am solo mooy ñu gën a amal càmbar jëm ci ba mu xóot di question de fond te ñaari parti yëpp nag ginnaaw procès bi li altine lañ koy dooraat noppi nañ ngir sóobu ca ñu ànd ceeg ko Ndiaye ciy leeral. ëpp ci exception yi nga xamante ne ni défense bi soulevé woon na ko ci procès Khalifa Sall président tribunal correctionnel bu Ndakaaru daf ko rek gàntal bokk na ci exception yooyu incompétence bi waaye itam liberté provisoire ak liberté d'office. juge Malik Lamotte japp ni avocat Khalifa Sali, a amuñu ay moyens yo xamanteni ne na permettre ñu am ndam ci exception. juge bi décidé de ni mën na et que la question du euh, relever une compétence est simplement cour des comptes donc lool motax mu déclaré compétent mais dafa am xam nga mbir mi en cascade la maanaam par escalier la dafa am exception yoo xamante ni ñoom tribunal bi dañu décider dañ koy boole ci fond bi duñ ko duñ ko évoquer gum léegi exception yooyu c'est des exceptions qui sont euh, très sérieuses comme ni ñu ko waxee nullité bi kenn évoqué wu ko nullité procédure bi maintenant bu ñu demee ba ci biir ba lundi ñu commencé débat yi ba finalement ñu décider mettre en délibéré dossier bi pour euh, wax ni ndax ñoom ñoo def wala ñoom ñoo deful benn passage obligé foog ñu jaar fa mooy foog ñu ne ndax procédure bi baax na wala baaxul donc le débat reste entier. avocat partie civile nag ñoom jàpp ne am nañ ndam donte sax ndam loolu njëlbeel dong la ci procès bi. dañoo nekkoon ci bunt bi rek ñu ne dañuy dugg ñiy téye bunt bi ne duñu dugg léegi tribunal àtte ne bunt bi ubbeeku na ñëpp nañ dugg comme ça ku nekk boo amee loo wax ku nekk boo amee looy prouvé ku nekk boo amee looy joytu nga mun koo wax ci kanamu sénégalais yëpp ñu xam ndax ñun li ñuy wax dëgg la. ndax ñoom li ñuy wax dëgg la ndax atte final bi rek moo mun tax nit ne gagné na mbaa nit ne perte na donc amuñu benn mbetteel ci li xew tey mais ñoo ngi sant yàlla am na aussi mbégte nag bu fekkee ne da nga jàmmaarloo ak euh, koo xam ne da ngeen di wujjee ci wàllu xam-xam ñu daal di atte jox la dëgg donte dëgg yi nekkul dëgg boo xam ne total na day nekk mbégte ci yow donc tey am nañ mbégte ci li nga xam ne jox nañ ñu dëgg ci atte bi. audience bi ñu daal koy suspendre. ba altine bi ñu dëgmal loolu nag avoca Khalifa Sall yi daal di koy sàkku ci juge bi yenn ci ay exception nag ñu fas yéene ko nag boole ak fond dossier bi ñaari partie yi ku ci nekk noppi nga ngir dugg ci fond dossier Khalifa Sall loolu nag altine ji lay door jërëjëf Codé Ndiaye wax lu soxal nag mbirum gàmm yeeg askanu fay yeewoo jàpp ne nag ginnaaw Yaya Jammeh askan wa am nañ seen affaire di ab liberté waaye nag la tënk réew ma mooy koom-koom ba daal ma nga tagga témbe demul dékkul demul mbaylaar demul tënk loolee nag bokk ci li nga xam nag moo leen soxal waaye tamit bu ñu sukkandikoo ci kàddu eh, ki nga xamante ni moom moo di xalifa Sall di ab député ci doo ci réewum Gambie mooy nag faaw lu jiitu loolu ñu daal di taxawal ab citoyen boo xamante ni eh, bu ci nekk nekk da koy doxee lañuy ànd ak Mamadou Diop suñu ndaw ba nga xam nag moo ñu fa teewaloon ay kàddoom. ci réew mi di Gambie gannaaw ba Yaya Jammeh ñu jëlee ko ci nguur gi jamono yi askan wi kat mbégte la ñu àndal ndax nee nañu kat danañ mën di wax seen xalaat ni mu leen neexee waaye tamit dem ak dikk bi nekkatul jafe-jafe gannaaw ba Adama Barrow nekkee seen président. soo gisee xaajale ci wàllu xeet xaajale ci wàllu diine lii yëpp ñàkk gis-gis bu sori la ndax benn nit ku nekk. su xamee ne moom moom moom réew te ku nekk carte wote la amee mooy sa baat mooy sa doole sa ñëpp em ca loola léegi tànn pour nit jiite la ndax mu isil la ay hôpital isil la ay eh, jàmm école defar la ay yoon eh, defar ku nekk mun a am jàmm nga mun a jàmm sa yàlla su fekkee ne loolu rek mooy liggéey nguur foofu xeex waru faa nekk xëccoo waru faa nekk yokkante xel moo fa nekk ni waaw dina xam ne réew du ñu ko yore ci benn xel. lenn rek moo nekk seen jafe-jafe mooy koom-koom bi nga xam ne war nañ ko suqaliwaat xalifa sàll nekk député ci assemblée nationale gambienne ne loolu moom régime bi nga xam ne moom lañu fi taxawal war na cee jóg ci ni mu gën a gaawee. lii wécceeku wécceeku bi mooy won fexe deret bu mu tuuru ndax su yàggoon eh, deret dafaa gën di tuuru eh, su yàggee sax beneen coup d'état xewaat ñun toogoon nañ bi gis ni lii nañu booloo. génne fa la fa nekk si doxalin bu gën a sell sell bi nag mooy nit ñi gën a am baat te gën nit ñaa ngi gën a am baat waa ne foog ñu romb loolu foog ñu defaraat bunti nguur gi foog ñu defaraat mbiri koom-koom gi foog ñu yaatalaat am ami nit ñi mu mel ni loolu nag du liggéey benn fan. li nga xam ne moom moo jiite parti bi di doy xamle na ne it ne. il faut ñu am ñetti at yoo xam ne. dana gën a defaraat. askan wi nga xam ne moom moo nekk ci biir Gambie. man maa ngi séntu ne ci biir ñetti at dinañu régler doxalin bi mu gën a sell ma ne man euh, da doomi Gambie yu nekk benn. ci diggante senegal ak Gambie xalifa Sall nekk député ci assemblée nationale bu Gambie moom ka rafetlu na bu baax a baax. relation bi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari réew yi. dafa gën a ratax. nag bu gën a ne ñu gis ne loolu nguur ak nguur la bu gën a ñu nit ñi ak nit ñi itam gën a yëgoo gën a xam li ci ñoom. ci biir gàmm bi mbir yi moo ngi commencé di bouger askan wi di def seen activité ni mu waree yaakaar bu baax a baax ne ci jamono yi ñu jëm nii dinañ gën a am dundin boo xam ne moo gën a jaar yoon. ñii si Sénégal Mamadou Diop di ay defar ñuy def cirage ci dàll yi ñoom nag seen dund gu jaar yoon loole la ñu bëgg tax ñu dugg ci ñenn ñi jàpp ne wàllum caada maanaam lu ñu baaxantal di wàllum tradition waaye ba tey terewul njaw ci desandi xambin ndax seen soxla daal mënugu ko daanaka aar mam mat sënkam Mouhamadou Samb solo na ay dàllam nag seq ay jéego ni mu ko ji ñenn si ñoom ñu teewlu ko. fi lan 2002 ba léegi ah, am naa fi ay 4 ans presque. ay ndaw lañu yu jóge ci gox yu fasantikoo yu nekk ci réew mi ñëw fii ci ndakaaru di daan seen doole ngir am dund gu yemb ñu ci bëri ci ñoom di ay pël mu mel ni ki rek ñoom ak métier Siras dafa am taarix bu am solo bu ko lal. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax liggéey bi moom su amatul liggéey da nga jàpp ri rek nga góorgóorlu ci moo gën am sens. Ah, waaw dëgg yàlla moom sant naa yàlla bu baax parce euh, amaguñu yeneen liggéey ci lii lañ nekk bu ñu jógee dëkk ba ñëw fii moom vraiment wax dëgg yàlla moom ci lii lañ nekk. bile métier di rataxal seeni diggante client yi ba tax na sax ñoom client yi di rafetlu seeni liggéey. Euh, wax dëgg yàlla moom am nañu client yu bari. ci liggéey lañu euh, ci li suñu liggéey la ñu gis quoi parce que des fois bu ñëwee fii dañu koy defaral daal lay ba mu ba mu kontaan. ah seen liggéey moom rafet na mënoon nañ fi nekk di def leneen mais defuñu ko xam nga ñoom ñu ngi gagné seen vie à travers nekk fii nekk ay ay Seereer vraiment man moom kontaan naa si li ñuy def. wante terewul ni ñoom ndaw yi di yëngatu ci métier Seereer ñu ngi ñaawlu condition yi ñuy liggéeyee. waaw jafe-jafe yu bëri presque boo xoolee xale yu ndaw yi sax boo gisee ñu def Seereer xam nga ñàkk a la. ñàkk ay palace ñàkk ay société boo dëggee tey tey ni amul kayit mënoo dugg ay bureau yi mënoo dugg am sance loolu yëpp ci jafe-jafe la. ci marché bi la ñu fanaan quoi gis nga. dafa am nekk fii si marché bi lañu fanaan amul fu ñu fanaan sax. ñoo su ma amoon liggéey yu gën lii daal wax dëgg yàlla moom damay bàyyi lii dog dugg ci loolu parce que ah sonn nañ fii tamit de wax dëgg yàlla moom. ñu ci bëri ci ñoom amuñu sax lu ñuy duppee vie de famille ñoom ndaw yile lu ci bari ci seen dund ñu ngi ko def ci wàllu métier mi ba tax na ñoom siiraaskat yi di ñaan kilifa yi ci ñu gën leen bàyyi xel. ñu ngi ci njobbaxtalu xibaar yi ponk bu mujj y soxna bi kay moo jàmm. daleen ak jàmm ma jukki leen li gën a fës ci yëglekaay yi Emmanuel Macron yegsi na ci Sénégal ñu bëri ci yëglekaay yi xëyee tey ak nganuk njiitu réew bu France ak financement yi mu nam ma amal ci éducation bi le quotidien ne ñaari njiitu réew yi bu weesoo jàngale mi dinañu àddu ci wàllu changement climatique yi yëglekaay bi di xamle ne Macron ñu ngi koy xaaral di ëllëg ca Saint-Louis foofu nag askan wi li ñuy xaar ci njiitu réew bu France bari na bokk na si géej bi nga xamante ne mu ngi nangu seeni kër waral ba ñu bëri ci ñoom di gàddaay laas ne Macron du wéet ci Sénégal ndax jaaree ko ci Léopold Sédar Senghor bi nekkoon parrain wu promotion wam ba si Sibeth Ndiaye bi chargé de communication wam ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu ci jamono jooju la tribune xëy def taxaw seetlu ci franc CFA gi ak law bi entreprise française yi di law ci Sénégal dippee ko la fausse piste Macron moom Macron nag li ko yëkkati bokk na si wàllu jàngale mi enquête xëy àddu ci jàngale mi ci Sénégal di xamle ne budget téeméer ñaar fukk ya ak juróom benn éducation bi lañ ko jagleel jamono ji nag mu ngi toll ci téeméer boo jël fanweer ya ak juróom loolu nag romb ñetti téeméer ci milliards ci payooru janglekat yi diggante Sénégal ak France nag coopération